aslun sëriñ bi nee na illatu taami riba illatu ñamu riba maanaam mandargam ñamu riba lii wan ni ñam wi daganul ëppalante ixtiyaatun mooy dunde waddi xaarul ak dëxëñ lépp luñ mën a dunde mën koo denc rek daganul ëppalante ak moromam mu ne waa jàmm yàlla ndax sàkku nañ ci li xale ba ci ay ci ngeen nutub dund te kon su boobaa nen riba du ko tàbbi ndax nutul ci dund donte mënees na koo denc ak ñàkk gaa sàkku nutub dund te kon riba nen riba dana ko tàbbi taawi laa ñu am na ñaar jant tàbbi nekk fepp riba tàbbi na ko buñ nee fepp nag dégg nga de danañ ko boyal jublu ca xeeti fepp yu bari wa say den ak say riba tàbbi na ko wa sultin ak sulti riba tàbbi na ko waaye ñoom yooyu jëm suñu wenn xeet la comme ñoom ñett yooyu kenn du leen ëppalante waala suñu alal riba tàbbi na ko wa ursin ceeb mii riba tàbbi na ko wa dox nim dugum ji junr riba tàbbi na ko mooy suuna dugub bi suuna wa sulatin mbokk riba tàbbi na ko waaye ñoom ñoom ñeent ñooñu ak ñaar suñu ay xeet la mooy xalas ak urs ak duxnu ak suratu ñoom ay xeet lañ benn bu ci nekk mënees na ko ëppalante ak morom ma dégg nga de wakit ni itam sëp dégg nga de moom itam rib ay xeet la dégg nga de mi naa bokk na ci kirsinatun xëb naan kirsina ñu koy wax sëbu koj moom ay xeet la bu ko defee kon waaye moom sëp nag ak ñaasum ay xeet la mu ngoog wa tamrin tàndarma riba tàbbi na ko wa sabidin sabid riba tàbbi na ko wala mi tey ni yàpp nginaaw riba tàbbi na ko waxu moom moom nag dégg nga de yàpp nginaaw woowu jin suñu wenn xeet la maanaam nginaaw yëpp moo xam lu dëkk si kër la ni ki ganaar ak kanaar ak lu dëkk àll ni ki naat ak sokkeer yooyu yëpp benn xeet la wala tele fa doonte wutoon mara xoo ñeex ma bu tee benn xeet la te daa bil maayi ni ki daa doy ndox yëpp riba tàbbi na la riba tàbbi na leen maanaam jën yi nekk ci biir géej yëpp moom itam dégg nga de benn xeet la dégg nga de kenn du ko ëppalante wa sawaatu la day borom ñeenti tànk yëpp benn xeet la lu mel ne yàpp xar ak yàpp nag ak yàpp bëy ak yàpp gëleem li ñuy gënante gënante du tey wenn xeet la wayen moo seen donte njaa àll la attaqué weli ci àll ba ñoo xar yeeg nag yeeg bëy yi wenn xeet la wala jëraa di njëréer riba tàbbi na maanaam moom itam wenn xeet la njëréer yëpp wenn xeet la dagal daganul ëppalante wa fi rubbi tamit ko ji ribaam ndax riba tàbbi na ko moom njëréer te kon du dagal ëppalante am riba tàbbiwu ko te kon dana dagal ëppalante xilaafun am nañ ci wuute wa fi jimsee sin mat boo xam ni ci benneelu xeet lu ñu togg li jimsee ni ci ñaari xeet dangaa jël yàpp maanaam borom ñaari tànk ni ki ganaar yi ak yu demee noonu boole ko yàpp borom ñeenti tànk ni ki xarak nag ndax su boobaa dana nekk benn xeet bu dootu dagan ëppalante am moom kay kenn ku ne day def ci cosaanam rek xaw laa ne am na ñaari wax suñu nee nag yàpp wa wenn xeet la neel war a mara fu ñeex ma it ka xuwa ni ki yàpp wala de lépp lu yàpp wa pëlante daganul daganul ñeex ma pëlante wala xas mu yàq ka xuwa ni ki yàpp wala wal jul du der ba neel ka xuwa ni ki yàpp wala dafa xaddam ne la way tos naa def na settee xirtu bay din akku nen maanaam bu fekkee dañuy jaay nen akk bi dañ ko ciy settee xirtu bay din naxaami akku nenu baax ndax nenu baax ak wa moom dañ ko cay génnee ndax loola maanaam marchandise la du ca bokk wala wasoo say ten borom diw borom diw yi asnaafun ay xeet lañu maanaam borom diw yi mooy ka ful li ni ki àbbul ful yi dégg nga de moom itam da nga naan wasoo say ten borom diw rek jërul xaddam ka ful li ni ki àbbul ful yi dégg nga de moom itam ribaata bi na leen borom diw yi ribaata bi na leen loolu rek ngay wax su ko defee nee na wasiyootu diw yi asnaafun ay xeet lañ maanaam diw yëpp ay xeet lañ ndax xeeti diw yu bokkuñu kal xusool yi naka leen yi ay xeet lañ bu ñu ay xeet lañ nag dagal na ëppalante dégg nga de su ko defee laa ko loolu waxuma njaw yi njaw yëpp benn xeet la moom du limu wala bi tasi ak xonj yi xonj yi mooy yi nga xam ne dañ koy xooj ba mu saf ñu di ko naan benn xeet la wala ax bâche ak mburu yëpp benn xeet la wala boo daa doonte leen la xit ne itam sëp la benn xeet la yeneen kas ta ndëre mburu suukar di abracin ànd ak njar mburu suukar de moom bu àndee njar maanaam nga xam ne dañ koo lakk muy mburu suukar ñu def ca lu demee ne ci ay beurre wala lu demee ne ci ay chocolat yu demee noonu su boobaa dana tuxoo ca xeet wa ba dagal ëppalante wa ko amul wa bay di nen moom itam dégg nga de yenn xeet la nen yëpp nag lañ boole yenn xeet la wa sukkar sukkar yenn xeet la wa xasalin lem dégg nga de riba da nga naan wa bay di nen riba tabbi na ko wa sukkarin sukkar riba tabbi na ko wa xasalin lem riba tabbi na ko wa mut loxu laban lu ñu booy lu soow riba tabbi na ko wa xulbatin ga tax sukkar riba tabbi na ko mu ne waa jàmm yàlla xanaa inex rek ndéem na tax na ga tax sukkar ba bala ba koy riba di tabbi day fekk mu na tax waaye bu na taxul kay riba tabbi ko am moom kay moo xam na tax na wala na taxul yëpp rek du am nañ ci deng deng nga ne wa mus yoo way yéwé na li ñam riba tabbi na ko kamari ni ki xorom riba tabbi na ko wa basilin soble riba tabbi na ko wa suumin ak laaj riba tabbi na ko wa taabalin ak nañ naan taabal moom itam xeet la ci yi ñuy safal riba tabbi na ko fulfuli ni ko fulful mooy poobar riba tabbi na ko taabal mooy lépp luy safal cin kaful fële nekk pooba wa kus munatal ak rataxaan riba tabbi na ko wa karaawiya ak karaawiya wa anison ak anison riba tabbi na ko wa simaarin ak simaar am na ñooñu firee nag dégg nga de anison mbépp wa simaarin ak simaar waaye yooyu daal ay xeeti gàncax lañ yoo xam ni wax dëgg yàlla fii ci Afrique minunu leen lool ba tax na dañ ko daan li simal noonu rek wa ka moo ne ni ak lu demee nekk ñaari las yi moom itam riba tabbi na leen waxee ñoom yooyu nag ak ñaasun ay xeet la bu ñee ay xeet la mooy benn bu ca nekk ak morom ma mu nekk na ko ëppalante laa xaritin waxuma pepp bakket moom pepp bakket moom riba tabbiwu ko moom bokkul ci yi nga xam ne riba da leen a tabbi sëriñ bi nee na wax safraan ak safraan riba tabbi ko wa xudarin ak way na tax yi bu ñëw way na tax yi mooy li nga xam ne dafa mel ne yomb ak naajo ak yu demee noonu ñu koy lekk ak xetar yooyu riba tabbiwu leen mën a ëpp wa dawaa im ak way saafara ñam yi ñu di ko tënk kataja kaani kamaate jar yooyu riba tabbiwu leen kaani dagal nëpp leen te kamaate noonu wa timmin dégg nga de akata moom itam riba tabiw ko wa moosin banaana riba tabiw ko wa fàkketin fruit yëpp riba tabiw leen ni ko orange ak mango ak mandarin mënees na leen ëppalante wala doxale donte mënees na koo doxañ doxatuñu ci wàll wa ka bundukin ak lu demee ci bundox dégg nga de mooy dañ koy firee tel ko mooy doomu saxat moom itam dégg nga de riba tabiw ko wa balhin bënkal riba tabiw ko in saxoona ndeen dawe na wa maa in ndox mii riba tabiw ko kon wooye joosi dana dagan jaay ndox di taamin jënd ñam li ajal mu jëmu dik kii di la andil ndox ba weer wi dee nga nag ñam jox ko dagan na ndax ndox riba tabiw ko dagan na plante ndox mu neex ak mu naqari ma ne wa tax nu dëbb laayan ko lu du taxal xeet maanaam sa kanam tuuti wala xaj na maanaam buñ ne lii riba tàbbi na ko nga am sa lu ñu dëbb te dëbbul du tax xeet wataxu wala xaj na mooñ laayan ko lu du taxal xeet wa salku ca kanam dégg nga de maanaam baxal baxal maanaam jël ci tet ni baxal te baxalul laayan ko lu taxal doomu taxu ca xeet wa te kon ëppalante ga du dagan ba tey ila tarmosa ndara njàndam njàndam nag moom buñ ko weqalee dagan na ëppalante ca maanaam ma ñu weqalul watan bii su xoñ laayen ko lu du taxal xeet maanaam bu fekkee da ngaa jël ci tàndarma ji xonj ko xonj googu dégg nga de wala sabit dégg nga de du tax mu tuxu ca xeet wa dégg nga de ba tey na meloon rek lay mel du taxu xeet dégg nga de ca la ñu xonjul dégg nga de comme benn xeet lañu dégg nga de nga xonj tàndarma ji ji xonjuñu ko taxul mu tuxu ca xeet wa di xilaati xel yu naan njaw njaw moom dana tux dana dina tuxal xeet maanaam bu fekkee da ngaa njawal kooku moom dana tuxu ca xeet wa dégg nga de maanaam loo xam ne dañ koo xonjoon ñu bàyyi ko ba mu nekk njaw day daal di tuxu dégg nga de njaw ga day daal di tuxu dootu nekk dagal na ëppalante ak xonj bi maanaam buñ ko bàyyee ci xonj ni bee xonj bii xonj xonj yi benn xeet la du dagal tuxu waaye bu fekkee da ngaa def sa xonj muy njaw man sama xonj nam meloon kon ndaw bi soxal soxal na ci xeet yi ba dagal na ëppalante ak xonj bi loolu mooy bëgg a wax moo tax mu ne bi xilaat xaliwut naa ko njawalam heure boo xamee ne xonj ma njawal nañu ko dagal na ëppalante ak njaw ba ak ak ak ak xonj ma wa tartin togg wa tardi la min ak togg yàpp moom itam bi ab racin ànd ak njër dina taxal xeet wa wasa yi ak wàjj yàpp baa ànd ak njër dina tax mu tuxu ci xeet wa ci kanam tuuti nee na wata ji fi ak fendal yàpp dégg nga de mooy nga wowal ko ba mu nekk seel daa ànd ak njaf def ci lu koy safal wowal ko ba mu daal tuxu ca xeet wa te kon su boobaa dagal na ëppalante ak yàpp wu tooy wi xëpp kenn toggu ko kenn defu ko dara li nga togg boole koog njar wala nga fendal ko ba mu nekk ay seel yu wow koŋŋ te sax mënees na ko ëppalante ak wu tooy wi xëpp ma ne wal ko su mburu moom itam dana soxal xeet wa su fekkee tey da ngaa jël ci sunguf si da nga de def ci mburu ba mu ba mu ñor léegi ni ki petum suuna nga lakk ko ba muy beñe léegi taxu na ca xeet wa beñe suuna bi mën naa dagan ëppalante ak petum suuna mëne wala sungufa suuna si la nga xam ne kenn beñewu ko nga ne ba xale xamen baxal xamu dégg nga dee moom itam boo ko defee day tuxu ca xeet wa xamu boo ko baxalee tuxu na ca xeet wa ba sawixin suusal day tuxal xeet maanaam tey bu fekkee da ngaa dëbb ci suuna ci ba def ko njóor ne tuxu na ca xeet léegi mën ngaa natt ñaari kilo pepp jox ma ma natt benn kilo njóor ne jox la wa zamanin juróom ñor moom itam day tuxu ca xeet wa su fekkee tey masalan da ngaa def ci soow mi génne ci diw ñor diw ñor di tuxu na ci xeetu soow bi ba jaasa dagan na tamron tàndarma dégg nga de jaay tàndarma wala xaduma bi nit di tamrin jënde tàndarma wala xaduma doon tàndarma jiitoon la dagan na jaay tàndarma jënde tàndarma bi nit yaa jënde kemba maanaam nga am tàndarma ma am tàndarma nu natt tolloole dagan na bi nit yaa jënde kemba ci tam waxani bun dagan na jaay meew bi nit yaa jënde kemba waruta bun dagan na jaay manax bi nit yaa jënde kemba ba masilin dagan na jaay lu ñu wàjji bi nit yaa jënde kemba ci kanam nekk tey da ngaa wàjji sa yàpp ma wàjji sama yàpp dagan na nu weccee waxat dun dagan na jaay seel binis laa jënd kemb dangaa seel ma seel dagan waxaf nun dagan na jaay yàpp wu xëbb binis laa jënd kemb wa subbun dagan na jaay dax binis laa jënd kemb wa sam nun dagan na jaay dégg nga di diw ñor binis laa jënd kemb wa jum nun dagan na jaay tekk mooy nekk guñu garis guñu wayal ba mu nekk nekk binis laa jënd kemb wàq sun dagan na jaay fromage binis laa jënd kemb te say toon ni ki say toon moom itam dagan na jaay jënd kemb wala nen dagan na jaay yàpp dégg nga de waaye laa rabihima wala sax nga ni ki say toon ni ki say toon riba tàbbi na ko wala min ak yàpp mi riba tàbbi na ko kon nag laarat bi xima daganul jaay wu tooy seen ñoom ñaar bi yaa di xima jënde woow seen ñoom ñaar maanaam kenn du jaay yàpp bu tooy ak saytoon bu tooy di ko jënde bu wow ba loolu dañ koy bañ ndax kon yemoo ko dootu am wa moom loolu ak lu ñu degfal daganul jaay bi mis lii jënde kemba ndax bu fekkee da ngaa degfal ma degfal dañ daan wax ne ku gën a yàgg ca ndox ma rek yaay gën a diisle kon nag yemoo ko dootu dëgg moo tax daganul wala banin ak soow daganul jaay bi su bin jënd dax ilaa ñu ko jëngale boo génneet na sub doo dax ba bu dee soow ma nag génne nañ dax ba benn dax nekku ci kon dagan na kee yor daxam ki yor soowam ñu jaayante ma ne waxtu bi rek xalameef na daqee ko sunguf fi xub sin ci jël maanaam ci xub sin ci ci ci mburu ma fi jaay fi xub sin ci jaay mburu bi nit yi jënd kemba maanaam su fekkee sunguf si léegi damaa yor mburu nga yor mburu ah ñuy weccee maanaam ñuy jaayante bu def na xalam sunguf suñu bàyyi ko bu dee wenn xeet na na mburu ya tolloo bu kenn fële sa morom bu dul wenn xeet nag nga xam ne kee dafa yor sunguf sële kele yor sunguf ak yeneen xeet kon dagan nañu ëppalante kaa ji nim niki mooñ dagan na jaay bi inte sin jënd pepp aw daqiqin wala jaay mooñ jënd sunguf dagan na waaye boo déggee dagan na jaay mooñ jënd pepp wala sunguf ah su boobaa bu dee wenn xeet it comme dëbb du toxal xeet dañuy wax ni ñetti kilo ci mooñ bi lu mu tollool ñu ne juróomi kiloy pepp nga joxe ñetti kiloy mooñ kee jox la juróomi kiloy pepp wala ñetti kiloy mooñ moom ñetti kiloy sunguf ñoo tolloo ba tey ngeen yemoo loolu la bu fekkee benn xeet la daal dañuy seet lay tolloog mooñ ga ca sungub sa wala lay tolloog mooñ ga ca tab ma ñu nga cee jox la nga jox ko nga ne ma jaal sa dagan na xamul jaay xamul du dàq xel jëndi sunguf mu ne waaw jaam yàlla barabu dagan la xanaa in wasi naa ne mandaxes na leen ñoom ñaar waaye nañ leen mandaxe ba xam leen am moom kay ajowul mandaxe dagan na jaay pepp jënd sunguf rek sara dina am nañ ci dénk dénk ma ne wërtu bi rek ala net la almumasa yemoo bi ñu yaari sari ci nattukaay yoon ba nga déggee yemoo gën wax fii nag ci buntu bii liñ ci jublu mooy nattukaay yoon boo xam ne sari aku tër la ñuy seet lan mooy yemoo ka maanaam te la ñuy seete yemoo ka wa ilaa neem nattukaay yoon amu fi fa di aada ñu dañ ci nattukaayu aada nattukaay boo xam ne aada yëpp dëppoo na ci boo déggee nattukaay yoon jamono yonent bi mooy saa ak mujj booba loola dañ koy natte waaye buñu demee ci nattukaayu aada nag comme léegi suñu jamono balaas wér nañu seet ci ak yemoo fa in asran ndeen jafe ñu albas ni man jaasa dagal na taari nattale i lam ñu ko dan dem nattale attaleeful ala taari ci nattaleem soo xamee ne dem na ba man ndaxe jafe dagal na lépp lu ñuy jaayante ñu nattale maanaam lii war naa mat nangam lee war naa mat nangam su ko defee ñu weccoo def loola mu di maanaam muy appareil boo xam ne des na ko nangu ci yaar ñun yoo xam ne dañ caa bëgg ak yemoo li kasal fii ngirub bareem maanaam daal su fekkee da ngay jëndante yaar yoo xam ne dafa bari te wax dëgg yàlla peese ga dafay yàgg dagal nañu nattale ndax bëgg rek yemoo am dañoo fas da yàqu na man in jaay lu ñu tere an walif ko i daal di dari nun dana tekkal ca dagan ga misaalam ka ayawaan yi ni ki jaay nu ndët di leen jënti jënd yàpp xeet wa daganul ah dégg nga de ni ki da ngay jaay xar jënd yàpp xar daganul xar muy dund nga jaay ko jënd yàpp xar muy dund im lam yëpp bax ndeem too gëstu ko waaye yàpp buñ ko xasee togg kon nag soxna ca nalaw su boobaa dana dagan jaay xar muy dund jënd yàpp wu ñu togg aw wala mu jaay nu ndët jënde dimaa jënd nu ndët loo xam ne laata tool du yàgg ayaatoo ak dundam ni ki tey dangaa bëgg a jaay xar moo xam ni da nga day dafa jaay xar jënd xar moo xam ne xar muy dund mu dara jotul te jënd ko xar moo xam ne ren di jënd yàpp rek ca des maanaam mi ngi xar-xarle suñ ko rendee dañ koy dañ koy daal di rendi léegi kon jaay nu nga jënd yàpp la loolu duñ ko nangu maanaam kii xaram dara jotu ko kii xaram ñu ngi koy bëgg a rendi ma ne ko naa la jox xar mi dara jotul te rendi sam xar yóbbu kon su boobaa ñu ne dangaa jaay nu nga jënd yàpp dëggalu aw laa man faata wala déet njëriñ fii di ca nekk ila la man dara yàpp wa nga xam ne loo xam ne amul njëriñ dara yàpp wa mooy lu demee nekk tappaa nga bëy moom yàpp rek lay am njëriñ dëgg ñu nga di ko jaay jënd yàpp aw xarit wala néew njëriñ la te xasi daani ni ki tàppaangab xarit sa kanam tuuti tàppaangab xarit amul benn njëriñ lu may daanaka yàpp wa rek tuuti la am njëriñ mooy am na ngëndal kooku dëgganul jaay moom itam jënd yàpp kon nag falaay josaani dëgg ñu jaay ñoom ñaar tàppaangam xarit bu béy di ta amin jënd ñam li ajël mu jëmub dikk ndax ñoom ñam lañ leen compté kon boo leen jaayee jënd ñam mu jëmub dikk da ngaa jaay jënd ñam mu jëmub dikk te loolu dañ koy bañ mu ne wa ka bay xaran alu demee nekk njaayum xar yonent bi tere na ko misaala mooy ka bayaa nekk jaayam di ximata ca xayma ja di ilsaamin ci waral nga xam ne da nga ne kaay ma jaay la lii nga ne loo ma koy jaayee nga ne xayma ji rek ah xayma ji moom kenn xamu ko kooku daganul ci biir saamin ca kanam aw xala aw kumi hii wala dinaa la ko jaay ci atteem maanaam lu ñu atte rek biir saamin ci waral daganul aw kumi man lu ma atte loola maanaam laa lay koy jaayee yow bàyyi ko bi nga ne man maanaam ma attee nangam nga fay loolu dañu koy bañ dégg nga de su ko defee sëriñ bi nee na aw kumi xëy wala atte keneen lu diw atte loolu laa koy jaay biir saamin ci waral loolu daganul nga xam ne bu ñu demee ca kooku bu nee nangam laa atte foofu nga fay daganul aw di daaw wala ngërëmam biir saamin ci waral kooku daganul maanaam lu diw gërëm rek laa la koy jaayee aw tawlit wala méngale sila tam sila lamis turaatoo xam tuddul sila sa biir saamin ci waral dangaa jënd sila ca marché xaw ma sila sa lu mu doon nga ne ma kaay ma méngale la ko te boo demee fokk nga jël ko loolu daganul dafa xadam aw samaniya wala njëgga biir saamin ci waral kooku daganul nga ne wakka mu laa mas di alu dama nekk njaayam laalante yonent bi salaa sallam tere na ko fayal sama war njaay ma ci kanam tuuti aw munaa basi wala sànnanteem fayal sama war njaay ma nekk da nga may sànni sama laan ma sànni la sama laan rek njaay njaay ma daal di war kooku daganul wakka bay asaat alu dama nekk njaayam jëmbaraay yonent bi tere na ko mu ne waa jàmm yàlla uumam njaayam jëmbaraay bay mun taa mooy jaay dayo fa maanaam da ngay taxaw fii sànni ci suuf si fu mu yem foofa la lay fay maanaam daal waxaale nañ ci suuf si ba juboo ma sànni fu mu dal rek ma rëdd foofa ni foofu laa yem ayol sama wala day war bi ba koo yaa ci tabeem maanaam dañuy yëngal jamra wi ci dara boo demee fu jamra wa waddee rek ñu ne foofu la njaay niy façon aw alama wala mooy sila sa nga xam ne taxaw na tabbi jamra aleykum bilaa xasin ci jublu wala nga yor tey maanaam ay sila ma sànni wut bu mu dal rek ma jàpp woowa moo xam ay xar la moo xam ay piis la wala leneen aw wala moom kay njaayam jamraay daal di dima mooy li mu la nga xam ne yàqaw dana tabbi jamra ko bu wenn tabbee nga fay ñaar benn bu ñaar tabbee nga fay ñaar bu ñett tabbee nga fay ñett def si laatu am nañ ci ñeenti prix wax boobu yem foofu mu ne wakka bay ma ak jaay la nga xam ne si bu toon li bi nekk na ci biir gëléem ya kooku yonent bi say dégg nga de maanaam tere na ko aw suuxal yaa wala ndigi gëléem la yonent bi tere na ko maanaam daal dana ko firi léegi ci kanam aw wala mu jaay lu ñu xam jënde lu ñu xam aw wala mu jaay lu ñu xam jënde lu ñu xam ngay wax dégg nga de ah ilaa am tontu de jëm ci ba ngérteloo naaxa nit caatu gëléem ya maanaam da nga may jaay tey lu ñu xam ci njëg gu ñu xam ni ma waaye bala ngay fay da ngay bàyyi ba gëléem yii ak bu jur seen doom yi loolu ba tey dig ba dañ koo réeré loolu kooku moom itam yonent bi tere na ko waxiya moom nag ci dooni li bi la jëlee mu waxoon almadamidu mooy mbéemuri gëléem ya wala malaaqihu ak man yi gëléem ya ba mu ne madamidu moo dellu ci butooni libili ba mu ne malaaqihu moo dellu ci suhóor yi maanaam la nekk ci ndig gëléem ya kon loolu daganul jaay waxablul ablati ak biir way biir ñi maanaam daal biir way biir ña mooy gëléem gu ëmb nga ne naa jaay doom ci biir bi kooku yonent bi tere na waka bay ak jaayam bi nafaxati ci dund xale yi waral ko ayatoo gir dundam waa ji dafa amee ak këram ñëw ni la man damaa amul ku ma yor damaa bëgg ma jox la sama kër nga di ma dundal ba ba may faatu kooku kooku daganul ndax xarar la ndax waa ji mën naa dund ñetti fan sax faatu te it mën naa dund téeméeri atis nag kon loolu moo tax xarar la nga ne war a jaa del bu tàddet wàcc war a jaa delloot na moom ak jënd ja bi ximati bi ximati maa ci xamee nga xam ne an faxa dundal na ko ca kooka aw bi nit lii wala kemba in ulima dem xalas na ko wala solofan doon tudd bu yàq na àllal jëy ci wax ja gën a lëng su boobaa la nga ko jot a dundal lépp da dala koy fay nga delloo ko ak këram bu dee kër la la joxoon bu dee seneen si laay noonu àllal jëy ci wax ja gën a lëng fa im yoon su jël ko ci wutam war dafa delloo njaay ma mu wax sëriñ bi nee na ilaa njëfoo sandre boo faat na nekki dégg nga de maanaam bam la jaayee këram léegi ci nga dundal ko ba ba muy faat yàlla dogal nga màbb kër ga ba tabax kon nag su boobaa yow aji jënd ji da ngay fay xëy may kër gi ah bu ko defee te ñu xisaab te la nga ko doon dundal maanaam delloo ko xëy may këram ca ba mu nekkee pàkk mu delloo la la nga ko dundaloon loolu mooy loolu la ñuy firee njaay mu faat wakaati bil fayl ak lu demee ne ki ko yonent bi tere na ko istajir woo xam ne def na yoole ara lu kaa ci jàpp jigéen ñi bàyyi ka koy mu tëbal ma sama gëléem bu jigéen ji ba mu jàpp wala sama na sa nagu góor yi mu tëbal ma sama nagu jigéen ba mu jàpp loolu yonent bi tere na ko wajaa sa dagal na nag samaanun jamono na ci tëb su na ko tëb ñetti fan aw maraat wala ay yoon wala na ko tëb ñetti yoon ma fay la nangam imaam Maalik ne loolu dagal na léegi nag fayn ak xat ngeen jàpp na bu jigéen ba in fasaxat firiku su fekkee dañ ko ne na ko tëb ñetti fan mu tëb ko benn bis wala ñaar mu jàpp ah la ca def dañ koy baax ma dellu atif ca tereg waka bay xetey ni alu demee nekk ñaari njaay fi bay etin ci mel ni njaay yab yow a moo xam ne dina jaay ko biir saa min ci waral benn daati tin ci fukk naq dañ ci teew mi teew alak sara lu gën a bari li ajal mu jëmu dik kooku yonent bi tere na ko dama lay jaay filaati boo ma nee nga fay dëng de maanaam fukk teew léegi léegi wala fukk ak juróom bu weer wi dee ah loolu moom tere nañ ko waaye nag na fekk bi ilsaamin boo déggee bi ilsaamin mooy soo xasee jël filaati yow muskari doo soo doo soo sañ a bàyyi waaye bu doon bu la neexee tànn jël ci fukk bu la neexee fay léegi bu la neexee it fukk ak juróom ba weer wi dee te kenn forcé wu la yaari njëgi gu la ci neex jël su la neexee it bas su boobaa dagal la loolu moo nekk ci fila bi aw sila tey ni wala ñaari sila muxtalifa tey ni ñaar ñi di way wuute dégg nga de naka ne da nga ne kaay jaam bi dama koy jaay ci junni waaye ku jënd jaam bi ci junni da nga jënd maraan nit ñetti téeméer te du ma leen teqale loolu ba tey dagal dégg nga de ñu ne ah boole ñaari sila ci gënn njëkk nga xam ne da nga koo waral ni ku jënd genn sila bi fokk nga jëndaale genn gi daganul mu ne ilaa bi jawlitin ndale wuute ga dafa amee ci rafet war a daatin ak ñaaw dangaa yor ñaari sila yoo xam ne bii dafa rafet loolu bii ñaaw ni ki ceeb bu rafet nga ni ceeb bu ñaaw nga ni nga ne ah ceeb bu rafet bi ne kilo téeméer la ceeb bu ñaaw bi kilo téeméer la bu la ci neex nag tànn su boobaa dara nekku ci wax boobu yem foofu nga ni way nag téléphone bi wuute na kii ma tuuma xëy waaye nga ne du ma wàññi ci benn ñoom ñaar du ma leen maanaam daal du ma ci du ma ci wàññi maanaam ñoom ñoom laa tolle leen njëg du ma ci wàññi benn kon kii tànn moom sañ naa tànn bu rafet bi su boobaa yow bu dee ku bëgg jël ci bu rafet bi ku bëgg jël ci bu ñaaw bi dara nekku ci nga ni way nag téléphone dem wuute na xiimatu way nag téléphone dem wuute na xiimatu maa xaymay ñaari donte wuute woon na xiimatu maa xaymay ñaari istila yooyu dégg nga de nga xam ne ñoom ñaari xaymay dañoo wuute ci rafet ak ñaaw kon su boobaa dagan na nga nga nga ni ñooy tolloo njëkk waaye laa taamin waxuma ñam ñu ràññeewul ci biir ñam dagan na ñu di ko misaale dangaa fekk koy jaay mburu te mburu mi ëpp na ëppante na nga dëkk ni daal di koy jox njëg kon dafa mel ne tànn nga mburu yëpp soo jëlee wenn yëkkati wa nga fa bàyyi mu gën a ndaw dañ ne jaay nga ñam wu ndaw jënd ñam wu ko ëpp dégg nga de te kon jaay ñam bu bokk ak moroom waxeet ci ëppalante day daal di tàbbi moo tax boo fekkee koy jaay mburu te mburu yëpp loowul da ngaa war a tànn ba eggal danga koo jox njëg waaye boo ko jëkkee jox njëg gi rek ñu ne tànn nga yëpp soo yëkkatee wu mag bàyyi ko wu gën a ndaw jaay nga ñam ak ñam bu bokk ci ëppalante loolu mooy laa tànn ba ñam wu ñu la ñëwul ci biir ñam bu leen maa xëy di doonte àndoon naa leneen lu dul ñam misaalam ke nafala suñ ni ki gar tàndarma mu sumilitum biraa ji meññ mi na xalaatin ci ay garab waa ji dafa am toolu tàndarmaam nga ni ko jaay ma ca genn tàndarma te waxoo genn dafa mel ne tànn nga yëpp kon soo ñëwee tànn genn dañuy continuer tànnoon nga geneen te kon jaay nga ñam jënd ñam bu ko ëpp ba tey loolu la ñuy bay yenal bàyyeen dara aji jaay ja def tas ñi koo xam ne sa teena xam san juróom min dinaa nii ci làkkam kooka moom dina xam yamu tànn ndax ci moomu làkkam ba mu daataan jaay xam na yamu tànn ci xelam ba noppi yow nag bi ngay jënd tànn goo yenn kon boo fayee dañ naan tànn nga yëpp soo tànnee genn ñun jaay nga goo googu gën a noonu néew jënde ko gii kon jaay ñam jënd ñam bu ko ëpp dañ koy tere nga ni waka bay amin ak demene ki jaayam aji biir yonent bi tere na ko bi sàtt am li ci sàtt mbir ma sàtt ëmb ba maa ngi jaay fas yu ëmb na wala gëleen te doom ji ci lay bokk fas yu fukki junni ak juróom doom ji juróomi junni loolu yonent bi tere na ko waaye waxtu fi de wax boobu yem foofu nga ni waxtu fi de jéggi lépp na xararoon xarar ya si doon juri aji néew léegi lam tu koo xam ne jubluwuñ ko li haajata ngir aajo lam tu ci kanam tuuti nekk tey yow da ngay jënd tabax bi xamoo nu fan la mag bi toll waaye ñaare daal rafet nga njort kooku jéggale nañ xaral ndax ñàkk xam fan la mag nga xaral la waaye xaral ju néew la nga ni wakka musaaban niki njaayam xaboo yonent bi tere na ko maj olin mooy jaay lu ñu réere bi maxloo min jënd lu ñu xam min jën ci de xeet ci kanam tuuti da ngay jaay lu ñu réere jënd lu ñu xam te xeet niki da nga ni kaay ma peese la bëri gob ceeb jox la yow nag nga jox ma jóob bee kooku daganu abi ma wala mu jaay lu ñu réere jënd lu ñu réere kaay na tal ma saako ma na tal la saako kenn xamul ci saako morom na mu toll min jin si ci benn xeet wa daganu moo xam gerte la wala ceeb la wala suuna la wa jaasa dagan na nag maanaam jaay lu ñu xam jënde lu ñu réere in kasran dem bari na ahaduma kenn ñoom ñaar fi xëyri biiru tudul koj riba lu riba tabbiwul ni ci ñambi ji ak batañse ji ak nawe ji ak carotte ji ak lajum bi nga xam ne dagan na ëppalante kooku dagan na nga jaay bërigo ak genn wàll kee moom jox la ab jóg rek waaw nga xam ne nag mu riba tabbiwu ko nga ne ma nawaasul dagan na jaay përëm bi tawrin jënd peere da nga de përëm maanaam moom itam ci atif bi araam ji la ko def nga ne ma nawaasul da nga de moom itam jaay përëm araam na jaay përëm bi tawrin jënd peere dagan na dagan na wanaa dagan na jaay përëm bi tawrin jënd peere waaye laa fulu sunu ko ma jaay përëm jënd ay koppar xam nga përëm ak koppar ñoo bokk kooku dagan na wakal kaali ak lu demee ni ki jaay bor bi mis liyi jënd kemba kooku moom itam jaay bor bi mis liyi yonent salaa sallam tere na ko tafsiram nag fas xumaa boo nee jaay bor bi nit liy jënd kemba fas xumaa mooy firi loo xam ne fi simit nekk na ci baat fi mu waxee ci lu ñuy yeexe waa ji tey dalaa ameel malaan nga ne ko sama malaan mi laa bëgg nga fay ma ko ni ki ameel ne la piisu mbasin war la koo jox nga ne ko léegi boo ma joxee xar bay ci tabaski bi da danaa mën a bàyyi malaan mi mu ne d'accord naa nga ne ko ana xar mi mu ne xaaral ma wuti ko loolu daganul wala mu xëy na donte lu ñu ràññee la yataaxul loo xam ne dina yeex xaddoo ak ngëbam kooku it daganul dégg nga de maanaam donte lu lu ñu ràññee la waaye daf mooy li ma la wax xar mi waaye bala mu ko bala mu la koo jox day toog ay fan loolu la ñuy tere mu ne ka xaay bi ni ki lu faddu moom itam ah maanaam fii mooy ka xaay bi ni ki lu faddu lu faddu moo xam akaar la wala leneen ah nga di ko firee loo xam ne da nga ko war a fay léegi loolu la ñuy bañ nga ne mu waa di ak dégg nga de lu fa nekkul rek mën la dinaa la jox lu fi nekkul donte da leen xarmaa nga seen doofaan la gën waaye feeg foof téeméer laa koy mën a indi dagalul ba mu waa din ak jëbér bu ñuy tërloonte lu la bëgg a faye maanaam waa ji amee na la bor bëgg la koo faye jëbér bu ñuy tërloonte xam nga yeex nga day ñëpp dagalul xaw ma naa fi ay ni wala njëriñal jëm ni ki da leen da ngay dem dëkk ci sama tabax bee waa ji amee na la junni war la koo fay ne la léegi waaw mën na maa dem nga dëkk ci tabax bee weer mu fayee la ko ba tey ñëpp ga dafa yeex dagalul nga new bay xoo araam na jaay bor bi day leen jënde bor jaay bor jënde bor nag dana amee ci ñàkk waa ji amee na la tey siraa nga dem jaay ko ni ci saydun ameel na la si laa nga dem jaay ko amrun ni ko amrun kaay ma jaay la la ma saydun ameel mu ni ayca nga ni ko jaay naa la ko ci nangam mu ni jënd naa ko léegi nag ngay topp amrun njëg gi amrun di topp saydun silaasa loolu mooy benn la jaay bor dëgg nga taaxir rasumali salam bi ak yeexe bëpp jurug salam lu ëpp ñetti fan gannaaw ba ngeen fasanka salam si ba noppi nga daal di koy yeexe lu ëpp ñetti fan ibtidaa u daynin bi daynin lay doon dafa ne da ngaa bëgg a tàmbalee bor ci bor kooku dañ koy tere nga ni moom mu ne teef na bayu daynin may jaay bor bu war aji dee bor bu war aji dee maanaam waa ji ameel na la faat lam la ameeloon nga bëgg koo jaay ah loolu dagal ndax xamoo dana danañ am luñ ko mën a fay am déet ndax ko xas ba dee moom dee na rek aw xaay bin wala bor bu war ko faddu ki la ameel nekku fi nga bëgg a jaay bor bu mu la ameel daganul wala xar ba dégoon na xëy bi koo faddu ga daganul nga ne waxaajirin ak bor bu war aji teew daganul jaay ilaa ñu xirandre boo teew na tudd woomal bu fekkee teew na ne man woomal naa nag su boobaa bon dagal na nga jaay ko waka bayin urbaani ak njaayu mosol yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na ko an ñi tiyoo mooy mu joxat ko dégg nga de maanaam moom bàyyihu mooy mu jox mustari yi fay an lëf allah an hoo si naka moom in kare indeen sib na alma bi aluñu jaay la lam yahudu dellu ilay jëm ci loola li ki daal tay waaji day jaay dara aw ñam nga ne ko naa la jox juróomi dara mos su neexee da nga ma jënd li ma bëgg a jënd te bu neexul it ma bàyyi laa juróomi te dem loolu yonente saa sallama tere na ko ma dellu atif cey aram waka tafriqu ummin alu dama ne ki teqale ndey faqat walif ku dul ndey min wala deaa ci doomam maanaam ndey tere nañu bañu jaay jaam nga teqale jaam bu ndaw boo xam ni amagul juróom-ñaari at nga teqale ko ndeyam yonent wax na ci hadis ne man faraxa bayna walidatin wa waladiha faraxa laa u bayna wa bayna ahibati yawmal xiyaamati képp ku teqale diggante ndey ak doom yàlla teqale sa diggante say soppe yawmal xiyaam bayen bi xismatin doon ci seddoo la nga xam ni dañoo diggante ñaari way bokkaale yéen ñaar yéen a bokk jënd ndey ak doom duñ leen may ngeen teqale ko kee jël ndey kee ndey doom déedéet aw bay ahadima wala jaay kenn ñoom ñaar li abdi sayyidil axir ñoom sama morom ma kooku moom itam yéen tere na ko dégg nga de kon nee na dama wax ni waka tafriqu umin aw bay aajima wala jaay kenn ci ñaar li xam di sayid laa xam ñeel jaamu sangu morom yow da ngaa moom ndey dikk bëgg a jaay doom dégg nga de sama jaam kooku donte man maa moom yaa moom doom maa moom ndey nga fekk sama jaam dégg nga de man mi moom ndey nga bëgg a jaay sama jaam doom loolu du tee tere nañ ko bañ ne waka tafriqu umin teqale ndey fàqat walif ko dul ndey min wala daay ci doom teqale nañ ko maalam it ko fekk fokkul waaye bu gone nga fokkee weesu juróom-ñaari at nag ah léegi daanaka jëm na ci ati mag man dagal na nga teqale leen ci njaay maalam it ko fekk fokkul mu taadan fokk gu ñu baaxoo nga ne wa suli kat dëgaleet na almasbiyatu ndaw suñu jàpp dañoo jàpp jigéen ci daarul xarbi mu boot doom ni maa ko jur gis na ko dëgal waaye walaa tuwaal si biir donante lu tax duñu donante xam nga ne neewoon nañu la masala yi nga xam ne ñaari seede koy saxal doona ci la bokk ak askan kon nag kii mënuñoo saxal askanam ni moo ko jur kon nag bu boobaa duñu donante dama ne woon waka tafriqu umin ak teqale ndey faqat walif ko du ndey min wala daa ci doomam maalam tarda fekk ndey nanguwul gis nga ndey teqale digganteem ak doomam ak xama su d'accord ñu teqale leen kon dagan na waaw waaw foofu la wax boobu leere nga ne boppa si ka na maanaam njaay ma min la nuñ ma a ndeem boole wuñu xuma ndey ak doom ci lël siñ cig moomeel su fekkee ne tey dangaa moom ndey wala ma moom doom te nun ñaar mënuñu leen a boole kenn ku jaay sam njaay dañu kenn ku jaay boo jaayee ndey ñu firi ko bu ma jaayee doom dañ koy firi mu ne waa jaam yàlla teqale ndey ak doom di xëy di ibadin ci lu dul wat ndax kasaalika dañ koy def ni ki teqale ndey ak doom ci wat te kon bu fekkoon ne dangaa may kii dangaa may ndey kii yow yaa moom ndey ak doom may ndey kenn may doom kecca def teqale nga leen kon su boobaa dana leen forcé ñoom ñaar ñu dajal leen aw wala moom kay yëpp dafa def na doyloo rek di aw sin siglak su dee dangaa may kee ndey may kee doom waaye nag kenn nangu na caa bàyyi morom ma ñu ànd maanaam si doom doom ma kenn mën naa bàyyi morom ma ñu ànd kon dagan na taawi laa ni am na ñaari jëmtal mu di leen leen si dagan kenn ki ni ki goreel boo goreelee kenn ci ñoom ñaar rek ah su boobaa ka ca des bu la neexee da nga teqale ko morom ma kenn dootu la tere ndax boo goreelee ndey fu doom ne mu fekk ko nga ne wa jaasa dagan na bayu ni si ma jaay genn wàllu dagan na nga jaay genn wàllu ndey kee jaay genn wàllu doom kee wa bayu aadi maa jagan na jaay kenn ñoom ñaar def ci ngeen goreel maanaam tey su fekkee tey dangaa yor ndey ak doom bu la neexee nga jaay kuy jënd ni man damaa bëgg a goreel nga jaay ko ndey mu goreel ko su boobaa fu doom ne mu fekk ko fa nga ni wala wala dagan na jaay joom ja maa kitaabas ummi ànd ak bidiw jotoo ndeyam maanaam tey bu ndey ji doon jotoo ba bidiw jotoo bi mu nga di ko jaay mën nga ko boolee doom ja jaay ndax kooko ndey ji bu joxee bidiw ba rek daal di gore nga ni wala mu waat ñeel na ku ñu yéefar bu ñu wëlëranteel tafriqatu teqale ndey ak doom su ko defee nga ni wakkuri asi def na listraawu jën nag mi ni ci moom yéefar bu ñu wëlëranteel yoon may na ko mu teqale ndey ak doom ngir loolu ci rafetal maslaa la waaye nag bu boobaa bu kenn jënd ci moom maanaam bu jëlee doom di ko jaay bëgg koo teqale ndey sib nañu ngay jënd ci moom ma dellu atif ca terega waka bayin ni ki njaay wa sattin ak sart yu naa xi moo xam ne dina firin tey maxsadu luñ jublu la kooku tere nañu ko misaalam ka an laa yebbee ni ki dootoo ko jaay yow dama lay jaay plaasi te ne yow dootoo ko sañ a jaay ah loolu tere nañ ko ndax loolu sart bu yàqul ñu ni faw tere nañu ngay sart ci njaay sart buy firin tey lu ñu jublu la mu ne ilaa bi tan bi si def ki nga ci teewoon ngoreel da nga ni sama jaam bii ku ma ko jaay nga goreel ko goreel gu teew loolu moom dagan na bu ko defee ku ko jënd dana ko goreel su boobaa nag wala ba di ko forcé in ab sama ndem lëm na ko ndem bàyyi dafa lëm ni ku ko jënd na nga ko goreel rek jam foofu kon nag su mu sëri jëndee kenn du ko forcé duñ ko forcé ni ko da nga ko goreel mu ne ma kel mu xayri nit ku ñu tànnaloo da ngay jaay jaam bi nit ni ko tànnaloo naa la bu la neexee nga goreel ko bu la neexee nga bàyyi kenn du forcé mu sëri waaye bi xilaat istiraay loolu naa jënd ala ijaat it bi ci waru ngoreel su fekkee da ngay jënd jaam bi dégg nga de te waral ne man dama koy goreel maanaam daal yow mustari yaa sàtt ni dama koy ngoreel ngoreel gu teew su boobaa nag soo bañee dañ lay forcé nga goreel ko ndax yaa ko waral ci sa bopp ka naka moom anaa na comme urotu gor na bi si laay jënd yow mustari yaa ni jëbéer bii bu ma ko jëndee gore na bis boo ko jëndee boo ko goreelu ñu forcé la nga goreel ko aw yuqillu ma dellu atif nga xam ne daganul aw yuqillu wala luy luy waral yàq bi samani ca njëgg lépp luy yàq njëg daganul ci njaay misaalam ka bañen ni ki njaay wasalatin ak leb njaay moo xam ne dañ caa sàtt leb ci kenn ci ñaari way jaayante ña maanaam moo xam mustari moo sàtt lek moo xam bàyyi u moo sàtt ni da nga may lebal nangam njaay ma daganatul ndax njaay bu àndeeg lépp daganul waaye wasaay wér na njaay ma in aussi fa ndeem asafeef na leb ba bis bu ñu bàyyee leb ba rek njaay ma wér ah aussi wala asafeef sàtt tadbiri sàtt gannaawal ga su boobaa njaay ma wér na dégg nga de maanaam boo déggee sàtt tadbiri sàtt gannaawal ga mooy dégg nga de mooy jaam bi nga xam ni da nga koo jaayoon ci sàtt gannaawal gannaaw ba nag nga asaf sàtt gannaawal ba kooku it njaay ma daal nay wér mu di leen ne leen ci maanaam wéru njaay mi te sàtt def ne ni ki sàtt tayle maanaam sàtt tayle da ngay jaay nit dara sàtt ni ko da ngay indi lu tayle kooku sàtt la buy wéral njaay moo xam bàyyi on sàtt tayle wala mustari ci njëgga dara nekk ci waxam ne leen ak aji gàddu da ngay jaay nit sàtt ni ko da ngay indi ku la gàddu boobu sàtt wér na wa aji leen ak njaay mu jëmub dikk maanaam njaay moo xam ne dafa jëmub dikk dégg nga de nga sàtt ni ko da ngay indi ku la gàddu kooku moom itam dégg nga de dagan na yooyu dagan na ma ne wala dama ne woon wa jaasa dagan na bu in usi fa neem asasef na lebba walaw xaaba doon te faddu woon na mustari ak silaas njaay mu ñu sàtt leb daganul waaye bu mustari jëlee silaas yi ba faddoog moom bu ñu asasee leb ba rek mu dagan donte mustari faddu na ak silaas dégg nga de waaw sëriñ bi nee na waaye watul jant lef te mu duwan na dégg nga de di xilaat yi ci lu wutal loolu am nañu ne ah kay bu mustari xasee faddoog silaas kon léegi daganatul donte asafoon nañ leb ba am nañu wax loolu wa fii war na ci njaay mu ñu sàtt leb nag in faat a ndeem faat na ak suru samani gën jaa bari ci njëgg al xiymati wala xayma ja in aslafa ndeem leb le na al mustari aji jënd ja ngir dañ koy tuumaan ni bu fekkee moom moo leble dana jaay bàyyihul silaasa ci loo xam ni na muy jënd silaasa du ko toll ñu tënk kalu tey mustari mooy waa ji jënd masalan yow da ngaa yow yor sa gerte di ko jaay commerçant bi dégg nga de mu ne la man maa ngi koy jëndee kaas ñaar fukk dégg nga de ndax comme mooy dafa sàtt ni la dinaa la lebal su ma noppee ma lebal la ab dund kon dañuy continuer silaas yi li mu koy jënd du ko jar mooy kaas ñaar fukk la buñu seetee xëy may gerte ga muy laam fanweer su boobaa mustari li mu doon jënd ci yow sàtt lebal bi moo tax mu wàññi seen gerte su boobaa nag dañuy seet lay xëy may gerte ga ñu ne fanweer la nga delloo ko ko dégg nga de mu def la fanweer bu mat sëkk ñu firi leb ba noonu la ñuy def kon nag ndax ñaar fukk yu mu ko jënde xam nga ni bëgg a lebal gim la bëgg a lebal moo tax mu mu mu koñal jënde gerte gi ñaar fukk te fekk fanweer la war a jar wa ilaa ndee mubtadi leblewul xanaa bàyyi hooy leble fal ak su muy safaan la nga xam ne kon dañ naan bàyyi hu moom itam bu sàttee leble ba tey day yokk njëgu si laa samuy jaay ngir la muy lebal mustari nekk tey yow da ngaa jógee ci àll ba dégg nga de yor sam xar di ko jaay commerçant bi ah yow bàyyi hu sàtt ni ko dama lay jaay xar mi dégg nga de pour danaa la lebalaale gerte bu gerte sàtt ni ko dama lay jaay xar mi teyit dinaa la lebal gerte ci lolli bi ba nga am kon su boobaa waa ji dana profité jënd xar mi ci fanweer mooy laam gi te fekk xar mi xaymaam ñaar fukk la jar ngir li nga ko sàtt yow ni ko dinaa la lebal gerte su boobaa kon sàttu leb boobu nga ko sàtt tax nga yokk njëgu xar mi ba muy fanweer moo tax su boobaa des na firi leb ba te seet lu doon njëgu xar mi ñu ne ah njëgu xar mi de ñaar fukk la mu jox law ñaar fukk dong ñu firi leb ba loolu mooy wax bi nekk na ci ak lu demee ne ki njaayum seng yasiidu moo xam ne dana dolli li yàqu ra ngir nga war mustari maanaam njaayum seng mooy ñu kompaloo yor benn silaa di la ko jaay kenn taxaw ci yow kenn jógee fële ñëw di waxaale te bëgg lu dul nga fay njëgu seer loolu am na ñu ko daan def ci marché yi kooku moom itam bu fekkee dem nga ba yëg ni dañ laa wor su boobaa bu la neexee yow ki jëndoon nga fii te ñu alima ndeem xam ne mu ngoog mustari ni dañ koo def njaayum seng fayil mustari ñel na aj jënd jëra doo delloo kooku mooy njaayum kompaloo rek ñaar ñoo xam ne dañoo bokk li ñuy jaay kenn ka ñëw di la ko jaay ka ca def ñëw di waxaale daal di tëb fay junni ngir bëgg nga fay junni ñu nax la kon su boobaa yoon may na la nga firi ko wayen faat na ndem faat na nag fan xiimatu ñu dellu ci xayma ja su fekkee si laa sa faat na ci sa loxo nga jàpp lu doon xayma ja nga dem jox leen ko ñu delloo la seen njëg jaa sa dagan na su alul bari laaj leen ni marché li yàqu fa ngir na fegu ani siaaj ulif ndolant su fekkee ñuy jël si laa yi ca kaw ga dañoo ñëw wut si marché bi dagan na ñu dend ci marché bi ñu ne ah gars yi nag nan d'accord ci ñun ñëpp genn njëg sàngam nan ci yem rek bañu si laa yi gën a seer ak a seer loolu yoon may na leen ko waaye laaj jami waxuma ñu wër marché ba yëpp nag ni nañ àndandoo pour nañ fegu ba duñu yokk njëg kon loolu kompaloo la duñ ko nangu waaye daal ñenn ñu dem na ñoom mën nañoo d'accord ci genn njëg pour bu si laa yi ñëwee ñu mën a jëndandoo te kenn du gaañu waka bay aadin ak lu demee ne ki njaayum ko jug teew li amoo jug ñal ko jug màng kooku yonent bi tere na ko aha maanaam yow da ngaa dëkk ci dëkk teeru bi waaye di la yónnee bagage ca àll ba nga di ko jaayal bi tadrijin maanaam di ko jaayal ndànk ndànk loolu da ngay tax ñu ci waroon a am dara duñu ko ci am loolu yonent tere na ko moo tax yonent bàyyi na xel léppi addina li ko yàlla yónnee risaala gu matale la wala bi irsaal doon ci yónnee la loo ñal ko donte kese kaw ga dalaa yónnee ay silaam nga dikk di ko ko jaayal ndànk ndànk ah loolu su boobaa dañ koy tere mu ne waa jaam yàlla noonu ñu teree baadi ba la ñu teree li xuré wi ñal ko jug màng dëkk village yi jege dëkk teeru bi nga xam ne mooy dëkk yi nga xam ne ñoom sori wuñu lool ndax ñoom itam tere nañu nga di leen jaayal seen marchandise yi ñuy indi ci ndànk-ndànk am moom kay bu dee xuróow yi kenn terewu ko xaw laa ni am na ñaari fa bu tàbbeet waat yow fusi def na firi njaay ma wa uddi ba tey yareef ko maanaam danañ leen yar ñoom ñaar ñëpp kala yónnee si laaya nga di ko jaayal ak yow yëpp mooy wa uddi ba def na leen yar sëriñ bi nee na wa jaa sa dagan na sira u jënd nag looñal maanaam xuróow yi maanaam am dagan na nga jëndal ko moom su fekkee jëndal rek la fii ci dëkk bi yónnee ko loolu moom kenn terew ko wakatala tey sëlee ak demee nekk gàttal si laaya yonent bi tere na ko maanaam bu fekkee ni tey gaa yaa nga yor nag ya jëm si daral nga di leen kar ca àll ba ngir bëgg a jënd yow jula bi boo dikkee mu seer loolu dañ koy tere da ngay bàyyi ba nag yi egsi ci daral bi ñëpp jëndandoo aw saa yi daa wala borom ba nga di ko kar kar saa ni ki jàpp bala di ci réew ma bi sifatin ci melo boo déggee kar borom ba mooy ka yor ka moom nagee rek nga kar ko waxaaleeg moom bëgg a jënd naa ya bala ñu agsi ci daral gi loolu yëpp dañ koy tere ndax dañoo bëgg nga bàyyi bu agseendoo ñëpp jëndandoo kenn du sonn kar saa ni ki jàpp bi bala di ci réew ma bi sifatin ci melal ni ki tey waa ji yor silaay ñibbisi na nga ni ko wax ma li nga yor ci marchandise yëpp maanaam li nga yor ci xeetu nag ak xar yëpp nga mun na nagu mel nangam xar mu mel nangam gëléem gu mel nangam nga jënd yëpp pour bu agsee ci daral gi rek yaa moom loolu ba tey tere nañ ko bàyyil ba mu agsi nga ne walaay bu tàggat wàcc nag walaay suxu loolu moom deesu ko firi nga ne wajaa sa dagan na li man ñeen koo xam ne alaak si am yaay nekk na ci juróom benn kilomètre ak su mu taajin jàpp lu ñu aajoo ilee jëm ci moom maanaam yow mi dand dëkku teeru bu mag bi juróom benn kilomètre maanaam ni ki nekk ki dëkk Kaolack tey maanaam Kaolack a ngi nii ka dëkk Ndofane la dem wala ka nga xam ne moo dëkk Mbirkilaan yoon may na ko bu ko jur gorom dee di ñëw mu jënd lépp lu mu ci soxla nga ne wa inama yeen taxul xamal na ko dina tuxu damaa noon faasiri war lu njaay mu yàqu dëkkat bi ci ñëpp njaay mu yàqu maanaam bu ñu fasantee njaay mi te njaay mi wérul feeg mustari yi ngëbul silaasi lu sikk ci silaasi bàyyihu mooy ñàkk waaw waaw balaa war lu gaa tuxu rek mbate mustari ñëpp silaasi ba noppi te bu fekkoon ne njaay mu wér la fu ñu ko fase rek xamal ni mustari war na la ca saasa waaye bu njaay mi yàqoo feeg nga bëgg ko yoonam nekk ci nga ne waruda delloos na njaay mu yàqu moom wala xalat waaye du ñu delloo xal la tey boo jaayan si laa njaay mu yàqu lépp lu ca mustari jëf liggéey am ko ca maanaam mu di saret wala muy oto mu dawal ci am ca bénéfice la mu ca jot a am loola moom duñ ko delloo bu delloo sa it loola da koy jël fayin faatan dem faat na moom njaay mu yàqu moomu ma daa wéy almuxtalif njaay mu ñu wute fii ci moom di samani ci njëg njaay mu ñu wute ci njëg njaay mu ñu wute ci yàqoo ma ko wéram dana dana wéy di samani ci nga bu njëgg loolu mooy lan mooy ku salamle di sa di topp meññetum làkk bu ñu ràññee ku salamle di topp meññetum làkk bu ñu ràññee kooku bis bu ñu boo xamee ni mustari ñëpp na njëgg ñu bàyyi mu wéy wa ilaa ndem nga xam ni du njaay mu ñu wuute ci ci wéram ak maanaam ak yàqoom dami na war na mustari xiimatoo xaymay silaasa bu fekkee silaasa faat na mustari day war lu xayma ñu delloo ko njëgam masalan soo jëndee tey silaa njënd mu yàqu te du njaay moo xam ni dafa dañoo wuute ci yàqoom dégg nga de ni ki salam la di topp nañitum làkk bu ñu ràññee kooku dañoo wuute ci wér na ak ñàkk gaa wér soo nga dee njëgga ñu bàyyi mu wér waaye bu dee njaay mu ñëpp dëppoo ci yàqoom la su mustari yi nga dee njëgga ñëwee silaasa ba dem te fekk njaay ma yàqu na bu ko faatee day fay xëy may silaasa ñu delloo ko njëgam kon mustari na fay xëy may silaa ñu delloo ko njëgam ñu ne seen foofale nga ne wa mit li mit lii war na ko jug tem su dee da ngaa jëloon ko jug tem mooy lu ñuy natt wala lu ñuy peese bu faat ci sa loxo da ngay da ngay dem jëndiwaat lu mel noonu dikk indi nga ne faat nag dana nekk di ta xëy ri soo xëy ni mit lin ci sotti ku jaww loo xam ne du mu ko tem maanaam lépp loo jënd te du ko tem ni ki jaam wala lu demee ni ki aw fas bu bu marché ba sotti ko mu doon jar lu seer tey mu jaar lu yolam wala mu doon jaar lu yolam tey mu jaar lu seer faat na dootoo ko mën a delloo si da ngay ñëw ñu dalal sa nga joxe xayma ja ba nga koy jënd wa aqaarin ak pàkk moom itam dana faat dégg nga de maanaam ak ak lu dul pàkk waaye pàkk moom dégg nga de misli yu ak pàkk maanaam lu dul misli yu du pàkk da nga naan su marché ba sotti ko faat na waaye misli yu muy lu ñuy peese wala lu ñuy natt moom bu faatee ci loxoy mustari day jëndiwaat lu ni mel indi pàkk it moom itam bu marché sotti ko du faata du faata fii déedéet ñoom ñaar moom duñu faat ci sotti ko marché sëriñ bi nee na wa faat dana nekk bi tool yi samaani ayawaan yàggub jamono yu dundal maanaam da ngaa jënd fas wi toog ak moom juróom yaari weer yafal ko léegi bu njëg bu fekkee njaay ma yàqu woon na it dootuñu ko mën a delloo si ndax faat na amaana fas wi léegi mage na suur na bu caa nekk na ci mu duwan saharun weer yàgg na bay faatun dundal ngirug ndaweem nee na wasalaani ñaari weer it yëggul bay faatun dundal ngirug mageem maanaam lu mel ne ganaar boo ko jëndee bu amee weer rek tey daal di nekk ganaar gu mag bu fekkoon ni njaay mu yàqu la it faat na kenn dootu ko mën a firi waaye lu demee ne ci fas ak nag mën naa am ñaari weer te du soppiku su boobaa yàggul bay faatal bu tee def na ko mën a fii waxtaara tan imaam la ko mit jëmbi am ne ànd naka moom wax jooju xilaafun wuute max naa la nee na loolu daal dafa mel ne mu dawana da ko wax waaye wuute la waxaala wax na maa tax jëmbi bay boppam bal day wuute maanaa wuute wuute la bu di maanaam wuute jëmm la bu di aji nekk fi saadit ca gis ga maanaam daal mundat li daal bu amee weer soppiku faatu bu amee ñaari weer soppiku lit faatu nga ne wax faat dana nekk ba tey bi naq le adduna ci toxal marchandise li bal din ba cim réew bi kul fatin ànd ak coono ci kanam tuuti su fekkee dama laa jaay fii marchandise nga toxale ko fii ba yóbbu ko Ndar wala nga yóbbu ko Matam wëlbati ko ànd ak coono ah njaay ma yàqu yi te su ko delloo si da ngay toog foofa jël si ma joxaat la sa njëg mu seet lu doon xaymee marchandise mi maanaam li lu doon xaymee marchandise mi nga jox ma ko wa mit yéen ak lu dul ko tem wa mit yéen ak toxal kecc sam li bal din ba ci réew bi kul fatin ànd ak coono li ko waay jaay na la téeméeri bëri koy pepp nga sëf ko ci oto dem ak moom ba Matam nga gis ni njaay mi yàqu na koy da ngay jël si mu delloo la sa njëg nga seet looy xaymay teg mi fii ci kaw la nga jox ko nga ne ba faat dana nekk ba tey dul wat ci laal jibéer bi bu ma la ko jaayee njaay mi yàqu na waaye jot nga ko laal faat na doo ko delloo si da ngay dellu si waat ma jox la sa njëg ñu seet luy xaymee jibéer bi nga jox ma ko ba faat dana nekk ba tey di ta xayri saati xayri misli ci soppi ko lu dul jëmmi ko cem maanaam lu dul misli yu mooy lu dul lu ñuy natt wala lu ñuy peese bu jëmm ji soppi ko faat na moo xam loola fas la wala naaj la wala leneen wa wa faat wa xuróojin ak génn an yadin walif loxo maanaam lépp lu génn sa loxoy faat na ni ki dama laa jaay tey fas wi yàlla dogal nga dem yóbbu ko nga jaayaat ko keneen ba mu dem bu fekkee njaay mi ma la ko jaayoon yàqu na it te yow jaayaat nga ko faat na kenn du ko mën a delloo wataaloo ko akkin ak aju ak karaxe nii ni ki tay dem dama laa jaay silaa si nga dem tay la ko faat na dootoo ko mën a delloo si waaye dañuy seet luy xayma ji nga indi jox ma ma delloo si nga way jaay si ak yooleem boo ko yoolee it faat na wa ak nin ak suuf dana faat bi bii niñ ci teel maanaam dama laa jaay suuf nga gas cab teel wa ay nin ak sewnde wa xat sin ak jëmbat wa binaayin ak tabax acimé yin moo nit ñaari du way màgg di coono waaye jaay na la terrain kese nga def fab tabax def fab teel jëmbat fay garab te coono ya bari na faat na da ngay dellu si waat luy xay bu fekkee njaay mu yàqu la luy xay may pàkk ba dégg nga de nga jox ko ko mu delloo la sa njëg ba faata faat na bii maa ci jëmbat ak tabax jëatun wàll ga xiyee moom rubo moo rubu fàqat walif ndolon su fekkee léegi léegi bi ñu la jaayee suuf si rubo bi bu ñu ko defee ñeenti xaaj benn bi dong nga nga jot a jëmbat ay garab gas ci teel su boobaa ñu yëriñu njaay mi yàqu na rubo boobee dong moom la ñuy faatal waaye la def ci suuf sa da nga koy delloo waaye laaqaluxuma lu gën a néew rubo su fekkee la tey la yàqu la nga jot a jëmbat garab ya jëpp fa tabax tabax ya mutul sax rubu kon sax du faatal la tabax ba nekk ak la jëmbat ba nekk waxuma laag la ci def bu teew ñu firi ko nga dellu ñu jox la sa njëg nga seet luy xay may suuf sa nga jox ko waaja bu ko defee nag wala hoo ñeel la kooku tabaxoon alqiimatu xay may tabax ba comme lam ca tabax jutuloo mat rubu du tax ñu du teew ñu firi ko waaye nag danañ ko jox xayma ja xayma mi aji taxaw alal ma xool ci la ñuy wax jëlee fa maasar yi wala mu sëy ak la ñu wéral dégg nga de lu mu bëgg a wax su la waaye jaayee suuf nga dem tabax fa gas fay teen te la nga ca tabax mutul rubu ak teen ya yëpp fa nga ko gas mu tur boo ca suuf sa des na ko firi bu fekkee njaay mu yàqu na nga dellu mu jox la sa njëg nga jox ko luy xay may suufam ci ña xam suuf soo ko joxee loola ba noppi nag ñu seet luy xay sa xay may tabax ak sa xay may jëmbat ak sa xay may ya nga ca cakam cakam ya nga ca def ñu jox la ko nga dem sa yoon lii la ñuy def nga ne ma fi bay mi ci jaayam xam la xat di jëkk nga bam mop la xan moo xam akkaar la wala du akkaar waaw suñu nee njaay de moom dégg nga de léegi boo bu ñu la jaayee si laa njaay mu yàqu soo ko jaayatee faat na waaw soo ko jaayee jëkk ngëm nag maanaam waa ji jaay na la silaa si njaay mu yàqu waaye bi nga ko daataan ngëpp si jaayaat nga ko ndax kon dana faatal firiga dégg nga de ah ndax kooku dana tax mu nekk luy faat ak ñàkk gaa faat tawi laa ni am na ñaar jëmt waaye laa n xasada ko më neem jullu na bil bay ca njaay ga al ifaatata faatal yow da nga léegi dama laa jaay silaa si njaay mu yàqu nga yëg ni njaay mu yàqu na dañ ko war a firi nga daw jaayaat ngir bëgg mu faat loolu su boobaa du faat nga ne waxta faa yëkkatiku na almusiitu la daan faat a njaay yéen xaa dañ dem dellu si na dégg nga de nekk tey masalan dañ laa jaayoon silaa si nga dem tayle ko ñu ne tayle day day koy faatal nga delloo si waat ko nga jëli ko sa murtayin andi nga firi ko ilaa bi ta xayri suuxin dana sat ko marché su doon daana jar lu feer wëlbati ko tey nag muy jar lu bari wala mu daan jar lu bari tey muy jar lu daana jar lu yo lu tuuti tey muy jar lu bari kon nag su boobaa du tax ñu firi ko dañuy bàyyi noonu kon bismillahi rahmaani rahim buntu bii nu génn la ko tar am tàmbalee ci wayeeru mu dana araam riban sa di riban a plante ba fii ak buntu bi ñuy bëgg a dugg muy mu ne ah lii dalilam ci sunna mi ngi nii maa rawahu imaamu muslim an abi sayid alqudri radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam alsahabu bisahabi walfiddatu bilfiddati walburru bilburri walshairu bilshairi waltamru biltamri walmilu bilmili mislan bimislin yaddan bi yaddin faman saada awis daada faqad arba al aqisu walmuhti fi ishwaun abi sayid alqudri dafa ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na wurus ak wurus xaalis ak xaalis peppum burru ak peppum burru shairu ak shair tàndarma ak tàndarma xorom ak xorom buñ koy jaayante mislan bi mislin mooy kem ak kem bu kenn ëppalante yat dan bi yaddin na ñëpp teewle kenn ku ne na teg sa morom teg faman saada ku dolli na al isdaada wala mu sàkku ñu dolli ko faxat arbaa def na riba te al axi su ko jàpp riba ba wala muti ak ka koy joxe soawul ak yemoo leen fii ci moom kon loolu mooy sababu ulama yi radiallahu anhum ajmahina surtout ulama yi masaayibin arbaa ñu ittewoo lool yi nga xam ne riba da ci am ci diggante jaayante yi ak jëndante yi ci wurus ak xaalis ak ci pepp yi am na riwaaya nag boo xam ne da caa teg ni way sax talafat asil ajnaasu su fekkee xeet ya wuute na fa bi oo kay fa siftum la ngeen jaayante nu leen soob am na riwaaya boobu léegi nag ñu dugg ci mu ne a mu ne a nag mooy buntu bi nga xam ni dañ koo tere ngir bañ ëppalante ci yow xam ne yonent bi dafa bañ ñu ëppalante ca mais ne leble wurus fayu wurus bu ko gën a bari wala leble xaalis fayu xaalis bu ko gën a bari wala leble ñam topp ñam bu ko gën a bari mu ni fas lun boobu mu ni atreef na maa njaay moo xam ni kasura bari na kas doxoo jublu kas doxoo jublu nit ña jëm ca li tuumati ngir bari tuuma ja ka bay hin ni ki njaay ba salafin bu ànd ak lépp kooku daganul ni ki tey dangaa jaay ñaari silaa ci ñaari dinaar mu jëm weer léegi nga soxlawaat benn silaa ba dem jënd ko ci dinaar bu teew su weer wa dee kan ko jaayoon jox la ñaari dinaar ya dañ naan benn bi dan ko koo lebaloon mu fayee la ko ñu ni benn dinaar bi ci def ñu ni mooy njëgu silaati ci def te kon njaay ak leb daje na ci benn pas-pas ñu ni loolu daganul njaay la ak leb ndax kon kon su boobaa njaay ak leb daje na wasalatin ak leb bi man faatin ci njëriñ leb boo xam ne dafa ànd ak njëriñ moom itam daganul te mooy tey nga leble pep moo xam ne dafa ñaaw di topp pep moo xam ni dafa rafet kooku daganul laa maa waxuma loo xam ni xàll néew na dégg nga de maanaam tuuma ja misaalam ka daani ka damaani ni ko warlu bi julin ci neexal boo déggee damaanu bi julin mooy dangaa jaay waa ji ñaari malaan ci benn dinaar léegi nga wëlbati ko soxla mel ne malaan ma mu jaay la ko dinaar bu teew yow nag ñaari malaan yi yaa ngi ko fa leble woon dinaar bu jëmub dik nga soxla mel ne ma mu jaay la ko dinaar bu teew day jël dinaar ba denc soo xamee ne dem na ba weer wa dee boo ko fayu see mu yëkkat dinaar ba jox la ñu ni da nga koo da ngaa jëndoon ci moom da nga da nga koo dénkoon ab dinaar neexale ko malaan loolu rek la ñuy wax da nga koo dénkoon malaan neexale ko ab dinaar kon nag su boobaa da nga ko dénkoon ab dinaar neexale ko malaan nee na aw assis nii wala lebal ma wa usallis kama lebal la lebal ma ma lebal la mooy kon daganul te loolu mooy lan tey dangaa jaay benn silaa ci ñaari dinaar mu jëm weer benn silaa ngay wax ci ñaari dinaar mu jëm weer léegi nga soxlawaat ko dem ca kan ko jaayoon jëndaat ko ci moom dinaaru léegi léegi ak dinaar mu jëm dig bu gën a sori bu njëkk ba kon su boobaa su dig bu njëkk ba jotee waa ji jox la ñaari dinaar yi dañ naan benn bi jëru ci limaale ndax kon dinaar da nga koo joxoon ab dinaar avance ko ko da dala koo fay bi ci des ñu ne moom itam dala koo lebal ndax yaa ngi ko deseel benn dinaar boo xam ni dafa jëm gannaaw weer kon su boobaa kon daganul kon nag faman baax ku jaay na li ajalin mu jëmub dig su ma saraawu topp mu jënd la mu jaayoon bi jënd sama ni ci xeetu njëgg min ay nin moom kee la ko jaay woon bëlti ko jëndi ko kee wa taamin wala mu jaay ko woon ñam wala bëtti ko jëndi ko ñam wa addin wala mu jaay ko woon marchandise wala bëtti ko bëgg koo jëndewaat marchandise fa ima benn naqadan muy teew maanaam li mu ko bëgg a jëndaate teew mi teew lay doon aw li ajalin wala mu jëmub dig aw aqal wala mu jëmub dig dig itam mooy dig bu yées dig bu njëkk ba wala bu yemoo ak moom wala bu ko gën a sori aw aqala wala lu ko gën a néew benn lu gën a néew njëggu njëkk ga aw ak sar lu ko gën a bari wala lu ko gën a bari benn it li ajal mu jëmub dig dig ba mu ko jaayee woon aw aqal wala lu gën a néew dig ba aw ak sar wala lu gën a bari benn it di mis li samani kam njëggu njëkk ga aw aqal wala lu gën a néew njëgg aw ak sar wala lu gën a bari kon boobaa yëm naw def na terminal ci moom salaasul ñett maa mooy loo xam ne te ajala gaayu na fii coom naq lu gën jaa néew kon da ñu tënk jàmm toja jàmm toja mooy tey boo jaayee si laa ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku ba koo jëndewaat teew mi teew dagan na nga jëndaat ko ci fukk teew mi teew dagan na nga jëndaat ko fukk ak ñaar ci teew mi teew waaye daganul nga di ko jëndewaat juróom-ñett ci teew mi teew dégg nga de boo jaayee silaa ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku bëgg koo jëndewaat seneen silaa mu nga bëgg koo jëndewaat xaalis dagan na nga jëndewaat ko fukk dégg nga de mu jëm doon a lajal dagan na fukk ak ñaar mu jëm doon a lajal waaye daganul juróom-ñett mu jëm doon a lajal su dee lajalu nafsi moom itam da ngaa jaay silaa ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku bëgg koo jëndewaat ci fukki dërëm mu jëm weer wa dagan na fukk mu jëm weer wa dagal na fukk ak ñaar mu jëm weer wa mooy lu ko gën a bari ba te dagal na juróom-ñett mu jëm doona mu jëm laajal na su fekkee da ngaa jaay laaj fukk mu jëm weer nga wala bëti ko bëgg a jëndaat mu jëm ak ci fukk dagal na kenn déggu jëkk ga dagal na lu ko gën a néew waaye dagal na lu ko gën a bari kon jàmm sa ja laqalab naqada terewu na yóbbaale laqalab doona ak laqalab ba ci lapput muy jaa ñetti soor mu ne atreef na ko da nga taa juróom-ñeent yi ci des yëpp jaa sa dagal na nga ni wakkasaali ke nako noonu la ujjal donte diggee foon na baadu xool leen njëgu ñaareel ga moom te loolu aji terewu la maa lépp loo xam ne tuujal diggéef na fii ci moom laqalu gën jaaniw ñu tënk da nga di an sabba da ngaa jaay tilaa ci fukk mu jëm weer nga wul bëtiku bëgg koo jëndaa dégg nga de mu ci fukk fukk ak ñaar juróom xaa naka dan teew mi teew saa juróom ñaar bax de lajal gënaal digg kooku it daganul dañ naan léegi soo avancé juróom buñu demee ba ca digg ba ñu jox la fukk dañuy jënd benn juróom ni jëru ci limaale ndax mooy juróom ma nga avancé noonu lañ la ko fayee dégg nga de mu def juróom ñu ne juróom yi waa ji dala ko lebal ndax buñu demee ba dala nga jox ko juróom ñaar muy saagi kon day mel ne dalaa lebal juróom dina topp juróom ñaar dégg nga de ah aw ba doo wadal leen njëgu ñaareel ga dégg nga de ba tey daganul moom itam ñu tënk din dal la dégg nga de ak din dabba din dabba mooy su fekkee waa ji daf laa jaay silaa ci fukk da ngaa jaay waa ji silaa ci fukk mu jëm weer nga wul bit ko bëgg koo jënde deel ñeent naq dañ ci teew mi teew deel des doon a lajal xam nga kon balaa dig baay ñëw juróom-ñett yëpp mat na su dig ba jotee mu jox la fukk ñu ne dalaa lebaloon dégg nga de da nga koo lebal fukk da nga koo lebal juróom-ñett di ko topp fukk kon kooku daga na din dabba mooy da nga koo jaay ci daal ci fukk mu jëm weer nga wala bëti ko soxla ko bëgg jëndaat ko ci deel ñeent naq dañ ci teew mi teew deel gi ci des ba da lajal gannaaw dig ba kooku it daga na dañ naan léegi bu dig ba jotee mu jox la fukk dañu teen teqi ñeent ñu jëru ci limaale ñeent yi dala ko lebal ndax ba da lajal nga koy jox ñeent mu des juróom benn fukk yi des juróom benn ñu ne juróom benn yooyu da nga koo lebaloon ñeent ya nga ko avancé woon la ñuy tudde lebal da nga koo lebaloon ñeent di ko tokk juróom benn ñu ne kon topp leble ñeent topp juróom benn dëgg na mu ne kat saa wi la jëlee ni naka yemoo ñaari digg ya yéen sarataan dem sat nañ ñoom ñaar xaa da nga day lankoo kooku it daganul bu fekkee même ñaari digg yi ñooy naf yal mu xaasit dàkk lankoo maanaam tey ñaari digg yee yemoo ni ki lajul naf si ne bu ngeen bu ngeen sartee ni bu ngeen lankoo bu dig ba jotee kenn ku ne fayu la ko moo la ma ameel kooku daganu li day ni ngi sos bor lay doon bi day ni ci bor kon it duñ ko nangu même lajul naf si mi daganoon na ngeen sàtt ni bu dig ba jotee ngeen lankoo wali taalik ngir loolu saxalay wéren jaay ma sàcc sori ci gën jaa bari li ab utam lu jëm afut sax sarata nem sàtt na ñoom ñaar xaa lanko bu ñu sàttee lankoo rek afut da nga day ak sarub afut ba la ñu tere woon nga xam ne mooy bi nga leblee laaj ci fukk mu jëm weer nga wala biti ko bëgg ko jëndewaat fukk ak ñaar mu jëm gannaaw weer ñu ne loolu tere woon su ngeen sàttee bu ngeen demee ba ca dig ba ngeen lankoo fukk yam la ameel mu téere ko ci fukk ak ñaar yam ko ameel mu daal di dagal wax boobu yam foofu nga ni war a daal wàll wal jadutu ak rafet ci wàll ga ca def kel xilit ni ko néew la woon ci wàll wal kasabti ak bari ci wàll te kon neel fu aqalu saman terewu woon arda u saman dana fa terewu fu aj fu aj wa terewu woon ak sa dana fa terewu dañu tënke wàmm waja ni ki da ngaa jaay silaas rek ci wurus mu jëm weer nga wal bëti ko bëgg ko jëndewaat wurus bu dee naka dan dagal na kenn wurus wu mel noona dagal na wurus wu ko gën a ñaaw waaye daganul wurus wu ko gën a daganul wurus wu ko dagal na wurus wu ko gën a rafet waaye daganul wu ko gën a ñaaw ndax aqalu saman moo fi terewu woon su dee da ngaa jaay silaas ci wurus mu jëm weer nga wal bëti ko jëndewaat wurus ci mujj lu jëes dig ba dagal na kenn wurus wu mel noona dagal na wu ko gën a rafet waaye daganul wu ko gën a ñaaw ci doona ndax moom itam aqalu saman moo fi tere woon bu dee ab xur nga jaay si laa ci wurus mu jëm weer nga wala biti ko bëgg koo jënd ci lajal naf si nga jaay si laa ci wurus mu jëm weer nga bëgg koo jëndaat ci wurus mel noonu mu jëm lajal naf si dagal na kem njëgu jë da nga daganul njëgu jëkk ga daganul moo xam wurus bi kem wurus mu mel noonu la wala wu ko gën a rafet da nga de wala wu ko gën a ñaaw lépp a terew su dee appo da ngaa jaay si laa ci wurus mu jëm weer nga wala biti ko bëgg koo jëndewaat wurus dagal na wurus mu mel noonu mu jëm gannaaw weer dagal na wurus wu ko gën a ñaaw mu jëm gannaaw weer waaye daganul wu ko gën a rafet kon laqalam naqa daa tere woon yóbbaale laqalab doona ak laksar bi ci lakkut tey mu fekk si ñetti soro lajol naf si ñu tënke wàmmu waja waaw juróom benn mu ne attereef na ko waaw juróom benn ci jaasa dagal na mu ne attereef na jaay sila bi saa bin tuurus loolu fi datin wëlbati ku bëgg koo jënd xaalis ilaa ñu ajjale ndere boo gaayo na ak sol lu gën a bari nanga koy matal mu taaxir ci xëy may aji mujj ja ji dan loolu ñu tënke bakk sul da ngaa jaay sila ci ñaari dinaar dinaar bu nekk di wecc ko ñaar fukk mooy keef gi dégg nga de mu jëm weer nga wëlbati ko bëgg koo jënde waat xaalis juróom benn fukk rek nga koy jënde léegi léegi bon ndax boo ko jëndee juróom benn fukk léegi léegi weer wa dee waajee jox la ñaari dinaar ya ñaari dinaar yëpp di ñeen fukk kon da ngaa leble lu bari topp lu néew loolu dara nekku ci dagal na wa bi sikka tey ni mu ne alaam na jaay ak jënd ci ñaari sikka ilaa jël mu jëmub dig ni sa alam israa yi nekk jëndam li ajal mu jëmub dig bi muhammad ci dinaar yi muhammadiya maa silaa soo xam ni baa jaayan na ko cëg dëkk bii si di jënd dinaar yi si diya kooku daganul da ngaa jaayan silaa da nga di jëmub dig ci dinaar yi yasidiya walbatiku bëgg koo jëndewaat dinaar yi muhammadiya kooku dañ koy bañ dégg nga de ndax kon su boobaa day mel ne dinaar yi si dee yële nga ko jëkkoon a jaayee dinaar yi muhammad yi nga xam ne moom nga ko jëndaate daf koo gën wax boobu yem foofu nga ne way nit salaan dem jënd na daal din ci marchandise mu xaalifin mu di aji wuteeg sama nu woon njëg gëm ko jaayee woon jaasab dagal salaasu naq di ñetti soori naq di ja faqat wali soori ci def yëpp ñu tënk jàmm taja dégg nga de su fekkee tey da ngaa jaay silaas ci marchandise mu jëm weer loolu bëti ko bëgg koo jëndewaat meneen marchandise mu bokkul ak mooma dagal na ñetti sooru naq du ja bu dee da nga koo bëgg a jëndewaat dégg nga de comme da ngaa jaay silaas ci marchandise mu jëm weer nga wëlbatiku bëgg koo jëndewaat dégg nga de marchandise mu bokkul ak mooma bu dee marchandise a ñaareel moo xam kam njëggu jëkk gën a naqadal wala mu gën koo bari ci teew wala mu gën koo néew waaye marchandise mu ñaareel mi da nga koo teewal léegi dagal na juróom-ñeenti soro ci def yëpp dara dagalu ci kon nag su boobaa nga tënk ja ñett jaasa dagal na muy jaja tamu ta juróom-ñeent ci def yëpp dañ koy tere juróom-ñeent sori ci def faqat wuli fi ci def yëpp dara dagalu ci len wal misli yu ko jub cam sifatan ci melo da nga koo jaay wal misli yu ko jub kem sifatan ci melo waxadan ak ci kem kamis li nekk jënd la nga jaayan la te kon fayam na wu def na tere dàqali ci gën jaay néew li ajal mu jëmu dig dégg nga de te mos ta terewu dégg nga de aw wala gën jaay néew li appu mu jëm aput in xaaba nem fad na mustari aji jënd ja ñu tënke jàmm taja ak xamu saja dégg nga de jàmm taja mooy su fekkee da ngaa jaay misli yu niki te mooy lu ñuy natt wala lu ñuy pese niki da ngaa jaay bëri gu pet mu jëm weer nga jaay ko waaj lebal ko ko mu jëm weer nga wëlbati ko bëgg a jëndaat ci moom tam mel noonu te waajaa ngi taxaw demagul fenn dégg nga de kon léegi dagal na nga jëndaat ci moom dégg nga de pet mu mel noonu ci naqdan moo xam da nga koy jëndewaat comme fukki dërëm nga ko lebale bëri gu pet bi dagal na nga jëndaat ci moom pet mu mel noonu fukki dërëm léegi léegi dagal na nga jëndewaat ko fukk ak ñaar léegi léegi waaye du dagal nga jëndewaat ko nga jëndaat ci moom pep moo ko lebal weer mu mel noonu ci juróom-ñett léegi léegi ni ko da nga koo jaay bëri bépp pep ci fukki dërëm mu jëm weer lebal ko ko wala bëti ko bëgg a jëndaat ci moom pep mu mel noonu doona dagal na kam njëgu jëkk gi ci doona fukki dërëm mu jëm lu yees dig ba dagal na fukk ak ñaar mu jëm lu yees dig ba waaye daganul lu gën a néew mu jëm lu yees dig ba su dee lajalu naf si da nga koo lebal pep ci fukki dërëm mu jëm weer bëri ko dagal na nga jëndaat ci moom fukk pep pep mu mel noonu ci fukk mu jëm dig baak boppam dagal na fukk ak ñaar mu jëm dig baak boppam dagal na lu ko gën a néew mu jëm dig baak boppam kooku dagal na su dee apo da nga koo lebal pep ci fukki dërëm mu jëm weer bëri ko nga wëlbati ko bëgg a jëndaat ci moom pep mu mel noonu dagal na nga jëndaate ko fukk mu jëm gannaaw weer waaye dagal na nga jëndaat ko ci moom juróom-ñett mu jëm gannaaw weer waaye daganul nga di ko jëndaat ci moom fukk ak ñaar mu jëm gannaaw weer kon ba tey jaa ñett mu ne xetref na ko mooy laqalam naka ak laqalab doona ak laqalab ba sa lapoon dégg nga de taa juróom-ñeent ji des yëpp moom jaa sa dagal na muy ja mu ta ja dégg nga de booba nag waa ji dafa taxaw ak pay mi demagul ak moom fenn waaye su xasee fat doog pet mi ngi ko jaayoon ci fukk mu jëm weer nga wëlbati ko bëgg a jëndaat ba mu mel noonu kon loolu ni te saabas loolu yum na u la ñuy tere bàqale ci gën jaay néew li ajal yi ak kalab lajol naf si bii daganoon na dégg nga de laajal yi mu jëm dég baak boppam dégg nga de te mos a terew mu ngoog waaye tere nañ ko boole ko ca mu fekk saña tere woon muy ñeel aw wala gën jaay néew li ak uda laqalab afu di terewu na muy juróom xamu saja juddu kon juróomi soor terewu na in xaaba nem faddu na mustari aj jënd ja bii ak misli yu ba nga xam ne moom nga ko jaayoon su xasee fàddoog moom ñetti soor yi terewu woon mooy laqalab naqadan ak laqalab doona ak laqalab da ca napp danañ ci teg boole laqalab lajulu nafsi ak laqalab afut muy juróomi soor xaa juróom mu ne etaref na ko saa juróom ñaar jaasa dagal la mu ne waa jaam yàlla xel sintu taam yi lu dul xeetu ñamam nga xam ne nit ki di ko jaay xam wa say wal bëti ko bëti ko bëgg jënd ci noonu sayëf ndax mu xaalifin dañ koy def ne ko lu wóote ci xeet ak kanam nelaw te kon fu ñu jubóo ci soor ak ñaar mu dagal awlaa wala moom kay dañ koy def ne ki ku bëgg a jënd lu mel ne xeet wa nga jaayoon te kon bu fekkee mustari fa doogul ak misli yu ba dégg nga de jàmm sa jala moom nga weesu léegi su fekkee fàddu naa moom xamu sa jalay doon tara dund am nañ ci dénga dénga wax boobu yëpp foofu nga ni ma baa ndeem jaay na mu xaw a man lu ñuy xëy ma ni kiw fas fa mis loo wëlbati ko bëgg a jënd kem ba te xëy di naka jënd la nga jaay loolu tey da ngaa jaay fas waa ji wëlbati ko bëgg a jënd ci yoon fas fu mel noonu dégg nga de moo fu ngeen jubóo ci fukki soor ak ñaar mu dagal mu nekk taxayraa ni ki sotti ko silaasa kasiran lu bari ni ki fas yu ñu ko jaayoon dafa wamoon waaye suur na léegi fu ngeen jubóo ci fukki soor ak ñaar mu dagal te yaa ko ko lebaloon wax boobu yem foofu loolu way trandem jënd na aada sow bay ni kenn ñaari malaanam lépp da mu jëm app mut la xan moo xam kenn njëgu jëkk ga wala lu ko gën a bari wala lu ko gën a néew imtana terewu na te kanam ngay xaddam aput yëpp ak yëpp soram yëpp terewu na boo jaayee malaan mi mu jëm weer nga wala bitiko bëgg koo jëndaat mu jëm gannaaw weer moo xam kenn njëgu jëkk ga wala lu gën a bari wala gën a néew terewu na awaq la wala gën jaa néew nga bëgg koo jënde naka dañ ci teew imtana terewu na kon nag ni ki da nga maa lebal ñaari malaan dégg nga de mu jëm weer nga soxla mel na ma wëlbati ko bëgg koo jëndaat mu jëm app moo xam kenn njëgu jëkk gën a wala lu gën a bari ko jënd wala lu gën a ñett sori app yëpp terewu na dégg nga de aw aqala wala gën jaaneew naqadal wala nga bëgg a jël laqalab naqadal ak laqalab doona dégg nga de mu fekk lépp sori aput terewu na kon xaa juróom mu ne intéresse na ko saa juróom ñaar jaasa dagal na sori aput yëpp terewu na mu ñett sooram moo xam kenn njëgu jëkk wala lu gën a gën a néew laqalab naqadal ak laqalab doona terewu na ya ca des dagal kon xaa juróom mu ne intéresse na ko saa juróom ñaar jaasa dagal na wax boobu yem foofu sëriñ bi ni moo mu ngoog mu daal di génnee sori dagal mu ne laaj misli waxuma kemba dégg nga de ca naqadan dagal na ak kem ba ca doona dagal na aw ak sara wala gën jaa bari ci naqadan ak doona dagal na kon yooyu dagal na lajol na fi lépp dagal na kon génne nañu dagal wantana terewu na jënd kenn ci ñaari malaan yet bi xiri sin fi sami ci lu bokkul ak njëg gën ko jaaye woon ilaan yekk sonre boobu bari na almuhajilu njëgguñu gaayo ga ji den lool ke tor ni ki da ngaa jaaye ñaari malaan dégg nga de ñu tënk bakkanum ci ñaari dinaar mu jëm weer nga wëlbatiku soxla mel na malaan ma mel na malaan moomee boo koy jëndaate xaalis juróom fukk ngay fay mooy noonu gi wala baaxoo doonte jaaye na silaa baasatin ci fukk suma saraaw topp mu jëndaat ko maa si la tin ànd ak seneen si laa dégg nga de naka dañ ci teew mi teew mut la xan moo xam tem jëggu jëkk gën a wala mut la xan moo xam tem jëggu jëkk wala gën a bari wala gën a néew dégg nga de da nga naan internet terewu na dégg nga de niki tey ñu tënke internet terewu na ñu tënke sàmm xaja waa ji da nga koo jaay malaan ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku mu boole malaan maag seneen si laa bëgg la koo jaay ci teew mi teew moo xam dana la koy jaayaate ci fukk naqadan dégg nga de daganul wala kem wala ci fukk ak ñaar naqadan dégg nga de wala ci juróom-ñett naqadan yëpp sori naqadan yëpp terewu na dégg nga de aw doona da nga koo jaay malaan ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku mu boole malaan maak sila dikk di la ko jaayaat nga bëgg koo jëndewaat fukk lu yees weer wala fukk ak ñaar ci lu yees weer wala juróom-ñett ci lu manqué weer kooku it daganul kon naqadan ay sooram terewu na yóbbaale soori doona aw li aput wala mu jëm aput daak sawe ci lu gën a bari loolu it terewu na lakk sa ba ca laput it terewu na fekk si ñe soori naq danak soori doona muy juróom-ñaar yu terewu mu andi nañu dagan yi walaa dinis biñu jégee ni kem ba ca kanam làpp da mu jëm aput dafa xaddam walaa dinis biñu jégee ni kem ba làpp dagan na maanaam nga jaay ko ci laa maanaam malaan mi mu jëm weer nga wëlbatiku jëndaat boole malaan meeg beneen si laa mu jëm aput ci kam njëgu jëkk ga dagal na aw aqala wala lu gën a néew laa ko da mu jëm aput dagal na kon laqala la maanaam mislu bi ci aput dagal na ak aqala bi ci aput fekk sori lajol naf si muy saa juróom-ñaar mu ne attref ko xaa juróom jaasa dagal wande am dafa jaay silaa ci fukk mu jëm weer mu wëlbati ko bëgg koo jënd bi xam satin ci juróom wasila tan ak seneen silaa ngeen imtana terew na lépp ba mu des lajol naf si ñu tënke ta mu ja ja da ngaa jaay silaa ci fukk mu jëm weer nga wëlbati ko bëgg koo jënd juróom ak seneen silaa maanaam nga boole juróom ak seneen silaa bëgg koo jënde silaa si nga jaayoon ci fukk soor yëpp terewu na ba mu des lajol naf si lajol naf si doo nga fi tagal kon taa juróom-ñeent yëpp mu ne attereef na ko jiin ñetti soori lajol naf si moom jaasa dagan na dane la terewuñu jënd la nga jaayoon ci fukk mu jëm weer nga wëlbati ko jëndewaat ko bees ci fukk wasi latin ak seneen si laa loolu kenn terewu ko ndax la xanu mënu fee am ñu tënk bam waja tey da ngaa jaay si laa ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku yor seneen si laa ak fukk bëgg koo jënde bu dee naqadan dagan na si laa si ñaareel si ak fukk kenn jëggu jëkk nga wëlu gën a bari su dee doona nga jaay si laa ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku yor seneen si laa ni ko jaay nga waaji malaan ci fukk mu jëm weer nga indi meneen malaan ak fukk boole ko bëgg koo jënde bu dee doona dagan na malaanum ñaareel meeg fukk bi kenn jëggu jëkk gën a wëlu gën a bari su dee doona da nga ko lebal malaan mi ci fukk mu jëm weer nga wëlbatiku yoraat meneen malaan ak fukki dërëm bëgg koo jënde mu jëm digg ba dagan na moo xam malaan mi ak fukki dërëm yi kenn jëggu jëkk gën a wëlu gën a bari dégg nga de su fekkee nag lépp terew na lañ wax ba mu def ñaar rek fi terewu ba ñaar ak fut moom du dagan da nga koo jaay malaan ci fukk mu jëm weer nga wëlbati ko bëgg a jëndewaat malaan mi nga wut bati ko wut meneen malaan boole fukk jox ko mu jëm ak fut terewu la kon nag léegi juróom benn yi muy baa juróom baa ñaar mu ni attref na ko waaw juróom benn yëpp jaasa dagan na mur wala wistara doonte jëndoon na na mu jaayoon bi àq na ci lu gën jaaneew laa jëli mu jëm dig baal boppam su ma radee toog mu nangu bi tëjili ci gaayo ga xam nga dañ daan wax ne laqalu lajul naf si dagan na su fekkee jaay nga si waat ci fukk mu jëm weer dagan na nga jëndaate ko juróom ñett mu jëm dig baal boppam waaw boo ko nangoo gaayo ndax des na la ko jàpp na rek ñàpp gaa dagan xaw laa ni te tan mu delu ne ci ñaari wax yi ke tan ki nit bàyyi ni ki jàpp na lu bàyyu mut li fen bàyyi ndaa ji sànk ci bakkan maa si laa soo xam ne xëymatoo xëymaam ba muy sànk bakkanam akalu moo gën a néew njëg bu jëkk ga ndax des na ko jàpp na ndolante la des na ko jàpp na mais si at ndolante indi laa ji fas dig ba di nga de mu del ci xawlaani bi ni ki daa waa ji da nga koo jaayoon mbaam ci fukk léegi mbaam ma di ko ruural la nga dóor mbaam ma mu dee nga xëy may mbaam mi bi nga koy rey muy juróom-ñett xam nga da ngay jël juróom-ñett fay ko su weer wa dee moom mu yëkkati fukk yang ko ko jëkkoon a lebale fay la ndax def na la jàpp na ñaar dërëm yam cay doole ñaar gaa jàpp na wax boobu yam foofu mooy may as dama dem salam lene farasan fas saatis azabin topp fukki malaan su may tara topp mu sàkkoo delloo suloo mis loo kem fas wa waa ji dig ba jot na nga ni ko andil ma fas wu mel noonu maa xam ak juróom ànd ak maa xam satin ànd ak juróom malaan mu ne teef na ko mut la xan moo xam juróomi malaan ya dégg nga de da nga koy def naka dan teew wala mu jëm dig ba wala lu yees dig ba ndax kooku la muy boole mooy salafu bi siyaadati la looloo tax ñu di ko bañ ndax comme delloo tina fas wu mel noonu ba noppi teg ca juróomi malaan salafu bi siyaadati la kooku dëgg na mu ne kamaade tara doon naka leen delloo si woon na fas wa bu fekkoon ne waa ji da nga ko tëral loon parce que di ko topp fukki malaan mu dem ba dig ba jot mu indil na fas wa rek dégg nga de kon it ba tey mu mu remplace fukki malaan ya nga ko doon topp kon it ba tey neen dañ koy tere dik bilaan kat tàndare boo des na alxamsatu juróom mbalaan ya la aj laa ba ci dig ba ñu ne waaw lu tax ñu tere mu def mu gaawe juróom mbalaan yi léegi-léegi mu ne li àndal mu ajjale naka aji gaawe li maa ñeen la xam ne fi si mat nekk na ci baatam